bàyyiwul kenn te laal na xale yu bari ci biir réew mi ministère de santé mi ngi leen di toppatoo bu baax waajur yi jàngoro bi da ay fo ñetti weer a ngi nii ñuy xeex ak jàngoro ji nga xam ni moo lëmbe àdduna réew yi yépp di ko xeex ci àdduna wërngël këpp sunu réew nag du ci des ginnaaw na ñépp déggal waa kër docteur dañu dee xale yi biir kër yi ñu bàyyi xel ci ñoom te di leen tàggat nañuy raxas suñu loxo ak ndox ak saabu bañ a fàtte sol masque yi nga lawaay di sàmmanteeg matuwaay yi aar xale bataaxal bi agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits moo leen ko jagleel ci lëkkaloom ak UNICEF ak KOICA